Les am solo les empreinte bi fi pour les générations futures te loolu nag yàlla may nañu ñu ci suñu empreinte mbirum ndox moom nga ne nañ ko xeex fi ab fosse boo xam ne nii fosse ciel ouvert la ñuy jël ay ndoxi fosse di ko de di ko waa mu leen di indil ay feebar nekk bu bon duñ mën a duñ mën a loolu préfet mu war ñu ne ci wàllu yoon ci wàllu droit centre boobu waru waru faa nekk ndax ay raisons yu bëree bëri taxawaay boobu nag ñu am ci di yee askan bi dañ ko continuer mu méngoo ak taxawaay bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci élection yi muy Ousmane Sonko taxawaay boobu la woote muy bàyyi naxaate teg yoon wi ci dëgg biñ gisee nag mu méngoo moom ñi nga xam ne ñi ngi àndoon ak ñoom Mbàkke doon leen yee pour lepp loo xam ne dafa jëm naxaate ak injustice mu teggeeku ñu ne ñooñu la ñuy voteel moo tax bi élection jotee bay nañ ci suñu tànk tubéy fépp foo xam ne taxawoon nañ fa am ay nit ñu ñuy safoo di déglu suñu kàddu ñu ànd ak ñoom voter leen bañ gagné voter nag ba nga gagné voter ba nga gagné baax na mais li gën a jafe du laaj ñu jox la li gën a jafe mooy ñu jox la nga dëggal li nga doon wax ñu jox la nga dëggal li nga doon wax jëfee dëgg parce que sëñ Bamba mi taxawoon fii tey moom xeex na suñu jàpp ko avant ñuy changer régime bi am na si ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan moom dañ nañ ko si huit mois am na ñeneen ñu ci ñàkk ay cër loolu waratuñ koo fàtte waratuñ koo fàtte dafa war a des suñu mémoire ba li waraloon ñoom ñu daj coono yooyu beneen régime du ko defaat accompagner nag dafa laaj nga ñëw di waxtaan ak askan bi ndax jëf lu baax dem pour man see jariñu dafa laaj euh, muñ lepp lo fi gis lu bax ñu koy jëfandikoo moo xam ku jang ba nek serigne dara wala mu nek docteur wala mu nek lenen amna moment bu difficile bu mu passé mburu sax la leen di jox exemple buñ koy jëfandikoo mu neex nga xamne aduna bi ñepp a koy jëfandikoo da nga wara a xalaat fi mu jaar jaar na fu bare bare ñu def ko fariñ lakk ko def fu bare bare ba yow mi koy jëfandikoo boko ko bo boo yoy wona la na lu bare bare ci aduna donc réew mi ñi ko jël wax leen ne dañ koy soppi da ngeen na war a ànd ak patience li la li leen war a jox alerte nag mooy ngeen gis ne injustice bi fi nekkoon ñu ngi ko def mais tant que defuñ ko war a jubbanti da ngeen a war a xaar ne mën naa metti ndax lu baax du yomb ñun nag lii suñu rôle bi ñu leen jàppalee bañ falu mooy ñu ñëw ci askan bi ñu leen ñu di leen surveiller mais également ñëw ci askan bi di leen expliquer ñii li ñuy def lu mu doon ndax ñu bare bare duñ comprendre te réew mi dañ koo nangoo ci loxo ay saay-saay yu bëri pexe am xaalis yoo xam ne nii buñ doxalee yoon bëgg leen a jàppaat dina indi ay jafe-jafe foofu nag lañ war a accompagner le président parce que ñoom mën nañ fay ay ñu bëree bëri ñuy véhiculer ay fausse information ba nit ñi. Hmm. liñ waroon a xam ba mën a muñ lu baax li ñuy jëf pour mu jëm leen ci résultat bu bu bu am solo duñ ko def. bu ñëwee fii ci Mbàkke nag jafe-jafe yi bari na fi tax nañ dox ba pare mais facture yi mi ngi ñëw di gën a cher am na lu ci desoon ci wàllu qualité bi. amnañ fi tamit suñ force boobu ñu doon wax ñu dem ba tëj ko mais préfet génnewul benn firnde benn lettre bi wane ne lii tëj na ko am na tamit ay travaux yu fi commencé yoo xam ne ay travaux état la hmm. muy ay tali yu fi def mais boo ko gisee di nga xam ne tegewul ci xam-xam te bis buñ ñu demoon ba mu pare amul assainissement loolu yàqu xaalis kese la moo tax ñu ngi woo gouvernement bi bépp projet boo xam ne da koy yëkkati mu koy def Mbàkke wala mu koy def ci Sénégal na ko teg ci xam-xam

di jël alalu askan bi di ko def ci ay ouvrage yoo xam ne ay ouvrage de qualité la beneen fi ñuy ñëwee mooy Mbàkke ñu bëree bëri maa ngi leen di gis ñuy wax ne gisuñ seen bopp ci gouvernement bi loolu nag ñun taxul ci ñu ci woon a dugg parce que yàlla dogal na ñun li ñuy liggéey nekk consultant di joxe suñu xam-xam lu nit di yaakaar ci wàllu loo mën a gañe ci ay gouvernement ñun mën nañ koo gañe ci suñu liggéey donc loolu taxuñoo dugg si politique meeting bii nag bu ngeen gisee ñu koy def dañoo xam ne dëkk bi dafa bëri ay saay-saay ñu gëmul dara ñoo xam ne ni boo occupé wul le terrain politique dañuy ñëw toog fa di continuer di ndax askan bi moo tax ñu teg meeting bi woo ci suñu xarit ñoom docteur Pape Ibra Diop Ablaye Ndiaye ñii poste bu ne mën nañ ko organiser occupé ci biir Sénégal ñu bëgg a nag nekk benn ñi nga xam ne ñoo jub am xam mën a taxawu askan bi bi ñuy xeexal askan bi ñuy ñëw docteur Ibra Diop ñoo àndoon doon xeex ndox mi foos njaayeen yee dem nañ fa dëgg ci affaire yeeg lépp nga xam ne waxul docteur laa rek du dem ci ay foos maa ko seede waaw moo tax nag as dëkk bi moo war a soppeeku ñun bu nekkee docteur tamit gën a wuñ leen dara fii lañ nekkoon yor sareet jaay ay ngooñ ñoo yéen a ñoo yéen a yem dañoo war a dellu si ànd ak yéen li lu jafe ci yéen li war a saafara li ngeen xamul ñu xamal leen ko loolu nag moo tax ñu ñëwaat di leen wax ne tàllal nañ leen loxo dugg nañ ci poli bi ba sax ci sàpp politique bi dañ dee dugg ba sax ci duñu reculer duñu arrière ah. ndax jiite réew mi mën nañ ko lépp lu ñu joxe ci réew mi am nañ xam-xam bi ah. am nañ pastéef bi waxuñ nañ ne dañ koy xëccoo mais dinañ toog nekk en veille di yee askan bi di ànd ak ñoom oh. bis bu ñu gisee benn saay saay bu ñëw bëgg a taxaw rek ñu buux ko mu daanu ñu ah. ñëw jël ko waaw loolu moo tax ñu woo loolu moo tax ñu woo leen donc na ngeen pare ànd ak ñun

daa mel ni docteur mooy maire moom la ñuy woo mu joxe ay diplôme di def reportage waaw ñu ngi leen di xamale daal fii Mbacké dafa bëri mafia yu fi nekk nekk ci suuf si di ko jaxase sama tool di jaay sàcc nañ ko fii jaay ko ñu taxaw ci jàpp leen ñu daw delloo ko dañuy demoon fulaak fayda ak Pastef noonu nag la ñuy def di noot askan bi nekk ci ay mouvement yu bëree bëri te loolu dafa war a dañ moo tax nag ngeen war a takku li tax nag ndax yooyu yàgg mooy nit ñi ñoo xamul te amuñ ku leen leeral ñun nag pare nañ pour réel la pare nañ pour ànd ak yéen te li ñuy def dañ cee ànd ak fit ak fula ak fayda ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous prochainement sama xarit yi dinañ ko woote te dinañ fa dem